di taxaw di wax mais dañu gis Ameth Ndoye euh, jékki-jékki rek euh, ñu gis ko bon wala sinon léegi la gën a fës en fait si paysage Ameth Ndoye te mu nekk Seneweb waaw maa ngi koy nuyu de passage mais dama la bëgg a wax ni mhm. Mhm. première conférence bi ma ñëw c'était pour démystifier Ousmane Sonko peur bi mu defoon ci sénégalais yi parce que ñii nekk Sénégal bu ñu ñemee ragalee wax ba benn jigéen jóge Amérique ñëw di wax mhm. xanaa ngeen war takk seen fit Mhm. jàkkaarloog Ousmane Sonko. da nga doon def benn point point de presse pour wax. mais may def conférence de presse au Café de Rome. Mhm. Ameth Ndoye ñëw na ba sama biir oto. Mhm. toog ak moom ne ma waxal sa soxla mais bul saaga Sonko bu ko xas bu ko attaqué. Ameth Ndoye ma la wax loolu. Ameth Ndoye ne ma bul attaqué Sonko loolu ban ban année la woon. mais 2021. 2021 bi Ameth Ndoye moo ñëw. c'était en juin en juin 2021. ñu ne bul attaqué Ousmane Sonko. bul attaqué Ousmane Sonko. mais parce que Ahmed Ndoye moment boobu mais je je pense que il avait de bonnes relations avec Ousmane Sonko. Mm-hmm. je pense que ñoom dañoo am sax des relations personnelles. Mm-hmm. dafay maanaam yow Ahmed Ndoye moo la gën a xam Sonko. ah bon parce que ñoom seen i ñaari jabar ay xarit la ñu. comme jabaru Ousmane Sonko ak. jabaru ak jabaru Ahmed mm-hmm. c'est des amis. d'enfance pas ay xarit simple ni mais vraiment. kan la ñaareel bi wala aana la wala aaw bi. wala ñaareel jabaram mm-hmm. euh, jabaru Ameth euh, mm-hmm. ak Anna mais ay doomu ndey maanaam ba benn bakkan maanaam koo xam ne mun na la jaral nga jaay sa bakkan ok depuis l'enfance mm-hmm. donc man je n'ai rien compris de ce qui est en train de se passer ou bien de ce qui s'est passé entre Ousmane Sonko et Ameth Ndoye wala entre les deux familles mais en tout cas radicalisation bi man daf ma surprendre parce que je tombe des nues parce que Ahmed m'a toujours m'a m'a même attaqué ouvertement et je pense que li ma doon combattre Sonko moo taxoon mu mu defal ma attaque yoo xam ni des attaques mais vraiment très violentes et injustifiées. Mm la preuve jaar na ci Adji Sarr balu baalu ma ak. Mhm. Ameth parce que dama ah ko porté woon plainte pour diffamation. Mhm. diffamation léegi ci gannaaw gi ci jaar na ci Adji Sarr ñëw demandé moom je lui ai excusé mhm. ma ne ko oh, maintenant on verra par la suite parce que mon dossier est avec euh, mën a xalaatee mën a xalaatee comme ni nga ko waxee Ameth Ndoye ngay def point de presse mu ne la bul attaqué Ousmane Sonko euh, jabaram ak ak Anna jabar Ousmane Sonko ay ami d'enfance lañ ay xarit benn bakkan lañ mais Ameth nee na ko nee dafay laajte ay question lay posé jàpp nañ voilà c'est son droit hein. Mm -hmm. c'est son droit c'est un citoyen sénégalais. day observé lu bëgg a wax. mën na évoluer parce que man amoon na temps may xeex président Macky Sall. Mhm. am temps ma ma ma ma nekk di xe jàppale président Macky Sall. Mhm. donc nit ñi les ne sont pas figés dans le temps. Mm -hmm. les perceptions les convictions ne sont pas des choses figées. Mhm. mën na fluctuer selon. Ouais. Euh, constellation. xam nga. Euh, pro euh, protagonistes yi. les, les, les intérêts, les right. enjeux du moment, les, les, les projets, etc. et les aspirations. Mais yow dafa la jaaxal en fait. je ne comprends pas je ne comprends pas trop euh, euh, parce que moment bi Sonko gënoon a yellool mhm. ay attaques il n'était pas contre Ousmane Sonko maintenant que Sonko vient d'arriver au pouvoir je vois qu'il va fouiller dans les poubelles de Sonko pour lui ramener mm. des choses euh, you know. Ouais. mais est-ce que ak ak jabaru euh, Sonko ñu nekk ay xarit ba léegi. mënuma la wax parce que parce que gis naa gis amatul gis naa dégg euh, sama nièce boobu maa ngi koy nuyu de passage buy gis émission bi. Mm-hmm. Euh, vraiment une femme de valeur une femme très bien je ne sais pas xaw ma lan moo xew je ne sais mm-hmm. pas qu'est-ce qui est en train de se passer mm-hmm. actuellement. mais je te dis que c'est Ous c'est c'est c'était le défenseur de Ousmane Sonko. Ah, à tel point que à un moment man attaqué na ma man. ndax Ousmane Sonko ba diffamation. Mhm. donc changement bu radical bi dans un contexte somme toute mhm. euh, favorable. à Ousmane Sonko c'est-à-dire en deux mois. il mhm. ne peut pas faire de miracle et il ne peut pas non plus expliquer. lépp li nga xam ni def na ko comme erreur du passé mm. parce que nit day def ay erreur ah c'est sûr que Ousmane se rend qu'il a fait des erreurs mm. maintenant bu fekkee ne da nga bëgg erreur yooyu yëpp nga tegal ko ko sur le plateau mm. ne ko tontu ma mais est-ce qu'il aura le temps de travailler pour les Sénégalais je pense que aujourd'hui mm-hmm. Ousmane lu mu war a def mm-hmm. euh, de même que le président Diomaye Faye c'est ñu am le dos mm-hmm. assez solide euh, assez ñu def cuirasse te ñu tànkamloo comme ni ko président Macky Sall doon defee mhm. il faut ñu tànkamlu te liggéey parce que résultat yi ñooy seen meilleur euh, avocat résultat mooy liy convaincre sénégalais mhm. man président Macky Sall dama ko doon attaqué ba ma ñëwee gis résultat bi. danga dana nopp dama waaw mais mais mënuñu mënuñu toj waxtaan bi justement te duñ ñu ci cof xam naa peut-être doo ci nangoo sori nañ cof Adji Sarr yaa ngi koy dégg. bon écoutez euh, su may wax su may waxtaan. Mhm. c'est normal que par rapport de la de, de que nous avons vécu ma wax ci waxu aj ma ma évoqué ko pour expliquer des situations. Mm-hmm. mais vraiment bu doon sama sago. nga wax si Adji Sarr que sujet boobu ñu ko. mais yëgoo ni fan la nekk bon sa doom en fait. aucune idée sonn nga si nga si ay mbir pour moi c'est du passé. Mm-hmm. Euh, pour moi c'est du passé. j'ai vu une personne qui me semblait être en détresse euh, et qui devait être entendue, écoutée. qui devait être défendu te kenn bëggu ko woon défendre man ma am fitu défendre ko ma am euh, folie sax lay wax mhm. ma am folie ndax sama xol lay topp ak euh, yërmande mhm. moo ma sonal défendre ko aujourd'hui je préfère que cette page la considère fermée mhm. et pour de bon kañ nga mu mujjee dégg par exemple yàgg na doesn't matter c'est c'est du c'est du passé mi génn Sénégal dem yëgoo si benn information. awma ci benn information et c'est bien ainsi ma ci responsabilité tout comme aw ma woon responsabilité ci événement yi am ah. ah ci diggante moom ak Sonko xamuma ko woon. Hmm. ba ñuy nekk Sud Beauté je ne connaissais pas quand je l'ai vu lyncher amul ko ko défendre c'est là que je suis venue. Hmm. te mënoon naa ko défendre ba dossier bi jeex. te duma ko gis duma ko teg bët. Hmm. duma wax ak moom. parce que j'avais pas besoin de reconnaissance mhm. fekk na ma sénégalais yi xam nañ ma ba pare mhm. fekk nañ ma ah, j'ai d'abord j'avais déjà mhm. la post la euh, la densité parce que jàng euh, densité intellectuelle bi école laa ko jëlee ak formation ak li ma liggéey au sein de l'État donc amul lu ma apporteel par contre elle elle avait besoin mu am au moins benn nit qui soit folle assez comme moi qui accepte de la prendre et de dire que elle doit parler si jàppale bi nga doon jàppale Adji Sarr ci ay regret maintenant. Euh, xam nga lu tax du ma ci am regret. Mm-hmm. parce que c'est un combat de principe. Mm-hmm. du moom laa doon xeexal. Uh-huh. en réalité sama réew laa doon xeexal à travers mm-hmm. le fait que les femmes n'avaient pas le droit. de vivre un déni de justice. aussi flagrant lié à la dimension de l'homme incriminé. Ça, ça fatal pour. les droits des femmes, mhm. pour la, la liberté aussi. Mhm. Euh, et les droits yi nga xam ne constitution jox na ko képp koo xam ne sénégalais la. indépendant am nga droit bu ñu la am nga droit même. boo dañ la tooñal même bu doon kuy taxawaalu. boog ñi nekk ci mbedd bi di fayeeku mhm. même bu doon ku mel noonu la. bu dundee li aji saar dund. man damay ñëw défendre ko. parce que même kooku noonu. même ki ñi ñuy woowee. nitu guddi. Mhm. jigéenu guddi ñooñu ba tey am nañu droit wax ne diw yegg na ci mante te namu. Mhm. du woon sama coobare. alors donc le combat c'était un combat de principe. il y avait certes à un moment un aspect euh, émotionnel. parce que xale la gis na fragilité sociale mu mu ma. Euh, je mu touché ma mhm. mais au-delà de cela je suis une personne. qui a toujours qui s'est toujours battu pour être digne. pour rester digne ñenn la. victime la woon ci euh, est une on peut même dire double victime. Mhm. le système n'a jamais été là pour Adji le Sénégal. et il y a beaucoup de je peux me considérer mhm. une des enfants du Sénégal. yi nga xam ne Sénégal n'a jamais vraiment été là quand ils avaient besoin looloo tax ma yërëmoon ko parce que quand j'avais besoin j'avais personne et j'avais en face de moi des gens forts ñu am doole wala ñu am ay appui mais man je devais euh, lépp je trouve maanaam yoon bi gën a métti laa doon jaar mais je regrette pas parce que ça m'a forgé ça fait que en fait je ne dépends de personne Et je n'ai peur de personne. Je ne lèche les bottes, je n'essuie les bottes et je ne porte de sac de personne. Mm-hmm. yaa ngi comprendre looloo tax aussi Sénégal xëy na du ma fi mës a. Euh, lan nga wax lan la da nga bëgg nga dund li mu dund wala da nga fa am. non du vieux du du compte comme li mu dund. mais abus. abus de confiance. abus exploitation. Mm. ou bien tentative. Euh, si tu ne si tu ne si tu n'acceptes pas. Mm-hmm. tu deviens une cible. dañ lay dañ lay. yàq buntu xatal mm-hmm. dañ lay tëjal ay bunt lu la li nga yelloon par tes résultats scolaires ou universitaires duñ la ko jox.